Giar kontaanee commencé la bon gars yi jàngat bu ndaw rek ci kàddu yu sëñ Moustapha Sy yi sëñ Moustapha Sy de moom wax dëgg yàlla ah man de ay kàddoom bettu ma man ay kàddoom bettu ma te képp kuy sénégalais warulaa bett waaye nag lan moom ma bett mooy lan moo tax Ousmane Sonko demu fa ba tey lan moo tax Ousmane Sonko demul ci gàmmoom lan moo tax Ousmane Sonko demul ci sëñ Moustapha Sy loolu moo jaral laajte waaw man jàpp naa ni loolu. bépp yot loolu nga war a demander quoi Ousmane Sonko demu fa waaw balaa ngay attaqué sëñ Moustapha Sy loolu war nga koo laajte ba pare ba mu leer la man na faraluma kenn dëgg rek laa fi nekkee sëñ Moustapha Sy nag moom ku koy yedd tey ci ay kàddoom dafa fekk daa laal sa nit rek mais sëñ Moustapha Sy moom wax na fi lu nekk waaw bàyyiwul yonant yi doomam taxaw na fi ne day poñe yàlla naqariwu fi kenn wala ñim naqari woon ñun dañ doon wax ni ay patriote laa nangam nangam bu ñu attaqué ay nangam nangam man mii bi ma koy naqaru fii ngeen di daal sama kaw naan noo yow da ngaa contre sëriñ yi nangam nangam fekk du loolu ñun dëgg bu santee Njaay ñu wax ko bu santee Jóob ñu wax ko bu santee Fay ñu wax ko bu santee Mbàkke ñu wax ko bu santee Si ñu wax ko te dëgg noonu la mel amul couleur amul xeet amul dara kon Seydina na ñu lijjanti lan moo tax demul seeti Sëñ Moustapha ndax ñoom ñoo nekkoon ci naaj bi nag di ko xeex nag mu muy ñoom ñaar ñooy opposé ndoo lu sëñ Moustapha Moussa wax mu mu favorable ak Sonko ñu koy partagé di ko di ko challenge su mu nee maslaaw ak ñii mu ma sëriñu APR yii ak ñi nga xam ñoo taxawoon naan amado Ba futur président ak ay gëmmal dóor ak ñi nga xam ñoo bokk ba bañ nangul leen ko ñu dem di leen raamal di leen sukkal war naa mën a maslaa ak sëñ Moustapha si waaw nañ waxante dëgg ñoom nag dañuy nappeek tëkku sëriñ moom nappe tëkku taalibe sax day nappe tëkku soo waxee sëriñam yow da ngay alku da ñoom loolu lañ xam nappe tëkku maa tax lii maa tax laa taxaw palaasu yàlla maa tax lii am maa tax ngay dund maa tax ngay noyyi maa tax te loolu mu loolu mu lay wax moo tax nga am ko yëpp mu ngi ko bëgg te mënu koo am ndax amoon na candidat présidentiel barki Dembo Ndiaye kon su lay tëkku si législative xamal ni sëriñ moo mel noonu sëriñ tëkkaate maa tax lii maa tax laa taalibe sax da lay tëkku da ngay def nii da ngay def laa maa tax lii maa tax ngeen di nooyi maa tax ngeen di dund maa tax sëriñ loolu mooy loolu suñu sëriñ yi ñoom loolu loolu lañ xam daal loolu lañ xam nañ leen ko nangul te ñu wax te dëgg Seydina Ousmane mu jéem a rafetal comme ni mu rafetalee ak ñee nga xam ne dañoo fësaloon seen féete mu rafetal ñun ñëpp ñu ko partagé nangu ko kon na rafetal digganteem ak sëriñ Moustapha Sy c'est pas encore trop tard sëriñ Moustapha nag béy wéy na mboos munoo leen koy yedd ndax nii lay mës a waxee nii lay mës ay position ñun ñëpp gis nañ ko te ñaa ko daan défendre te xam nañ ni nam ko daan doxalee du definu kilifa tey nag su buur mi dalee suñu kaw nañ ko nangu li ma ci jaaxal rek mooy <laughs> wax bi gën a suufe ci wax ji mooy jomaay laa xamul lu ma koy def jomaay moom ku baax la <laughs> niveau bi moom wàcce nga ko bu baax a baax sëriñ bi mais nag ñu ngi comprendre sëriñ amul lu dul daraja sëriñ darajaa ko jaral lépp waaw raf la jigul ndaanaan jigul sëriñ kon Ousmane Sonko sëriñ dafa am rivalité seen diggante sëriñ boo seeti bàyyi morom ma ku la ko waxee bu la ko waxul am na lu ko naqari te sëñ Moustapha Sy nag daa mérito na nga dara jaal ko nag jox ko cër wax dëgg yàlla yàlla loolu la bëgg waaw kantaan nag législative moom sëñ bi loolu moom munoo ci dara waaw munoo ci dara waaw askan bi nañu jóg dem jox majorité présidentielle jomaay fay ñu liggéey réew mi waaw balaa intérêt kenn nañ teg intérêt réew mi ci kaw table bi mais sëriñ moom lu ci ëpp intérêt boppam lay teg ci kanam soog a teg intérêt réew mi wala intérêt maamam waaw ah, loolu moo fi am son excellence guddal fan ñu ngi lay xaar fii ci Amérique Sonko demal seeti sëñ Moustapha